yéenekaay yi. Pape ubbil l'observateur ma ngoog ñu ñëw. ni mu ko waxee mbirum mbirum mbirum Lamine Diack daanaka yéen a yu bari moom la ñu xëyandool li l'observateur xëy bind moo di àdduna tukki na ban àdduna tukki bi ñu nekk waaye mooy le monde journal bi nga xamante ne ji moom moo bindoon ay mbir jëmee ci Lamine Diack ak li ñu ne dañ koy tuumal xaalis guerre bu ko waa Russie jox mu ne da caa financé campagne yu Macky Sall yéen a bi nañu journal le monde leeral na nee na ñi nga xamante ne ji loolu la ñu jëlee ci PV bi turu président Macky Sall nekku ca li Lamine Diack wax mooy benn réseau opposition bu bëggoon a jaamaloo ak Abdoulaye Wade ñoom la financé ci euh, xaalis bi ko waa Russie joxe loolee Lamine Diack wax yéen a bi nañu waa Le Monde ñoo xëy dellu siwaat eh, eh, ki nga xam ne moo di Omar Sarr ñu koy toppee xotti woon ma njiit réew di offense au chef de l'État yéen a bi nañu ñaari yoon fanaan na ko ci commissariat bu port ministre de la justice de maître Sidiki Kaba li nga xamante ne wax na ko ci mbirum Omar Sarr journal bi nañu bu sottee daal Omar Sarr yëf yomb ci moom lan la wax mu di dossier la boo xamante ne ngeen jàak moomee le quotidien moom it daanaka dafa mel ne ku xëy déggoog l'observateur nii la dikkee le monde s'effondre maanaam àdduna tukki na moom nag daf kaa gën a leeral ndax bu ñu gisee ni ñu bindee le monde fii ak journal le monde ni ñu koy bindee benn la am na ay journalistes yu des médias mu di waa kër Bougane Gueye yi dañ leen a convoqué jii ca dikk lañ leen fay tuumal moo di offense au chef de l'État laas moom it ñëw ci mbirum Lamine Diack a ci journal bii di Le Monde euh, ñi ngi jéggalu président de la république ak képp koo xamante ji tudd nañu sa tur ci yëf yi ndax euh, article ba ñu njëkk a bind turam da caa nekk beneen bi ñu daal di ci faat beneen article boo xamante ne ji turu Macky Sall la nekku ca lépp boo xamante ne ji bi def na ko benn benn la ñu ko journal bii di Le Soleil doon faram fàcceel beneen yéenekaay bu ci dellu siwaat enquête la moom la mu jàpp moo di Bourde di njuumte loo xamante ji wër na àdduna bi Lamine Diack ci xët mu njëkk yéenekaay bind nag ni mu ci delloo gannaaw lépp mi ngi ci journal bi nga xamante ne ji moom moo di enquête noo kon la ko faram-fàcceel wal fajri moom li mu gis mooy jamono ji nga xamante ne ji eh, kii di Lamine Diack ñoo ngi koy ngawte ngawte ci àdduna bi nguurug Sénégal moom ki mu bëgg a sippi yëf yi moo di ku jéeg gi ak ñi nga xamante ne ji ñoo di journalistes yi ci nan yéenekaay bi di populaire dem na ca ba jeex La Tribune xëy dikk euh, euh, fu kenn xaarul woon moom dafa xëy dem seete si fan Mandar di journaliste bi nga xam ne mooy journal journaliste bi liggéey ci journal Le Monde te bind article bi li mu wax leer na nee na mboolem lu ñu wax lu ñu bind rek Lamine Diaga ko wax waxi jaag yi amul dara lu ñu ci soppi ni mu ko waxee noonee lañu ko bindee ci journal bi moom waa ji sax dem na ba ne dafa amuk jaaxle ci ni ñuy jàppee ay journalistes fii ci Sénégal ak di leen convoqué mu ne Lamine Diack na ko leer ne li ñu koy toppee bu dee dëggu na ay ati kaso yu bari mën na ko caa fekk doomi Lamine Diack di Pape Massata Diack journaliste bi ne ñu ngi koy wër mais kenn gisu ko waaye moom it am lu bari lu mu war mën a tontu ci yëf yi fan la nekk direct info nañu ma nga ca Dubaay yéen a kaay bi moo ñu wax loolu moom Pape Massata Diack bi ñuy wër ma nga ca Dubaay libération nañu am na benn commission rogatoire boo xam ne libération ñëw ak ñun ci benn commission rogatoire boo xamante ne dana danañ ko indi fii ci Dakar waa fédération internationale athlétisme ñoo koy def ngir lijjanti ko Pape ñu dem ci Le Soleil lijjanti dem nga président Macky Sall demoon ca fi nga xam ne moo di Tiwaawoon yéen Tiwaawan tax na dëkk bi yëpp jóg ne ko jaajëf Pape